xibaaru biti réew yi dañuy dooree ak bi nga xam se ne moo di Mali Ibrahima Boubacar Keïta ndax du dàq premier ministre ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllum diine ji boobaak léegi nag ñuy sàkku ci pour ñu jële ko fa ñi nga xam ne tamit ñoo yëngu ci way ku jégi tamit boobaak léegi tamit ñuy sàkku ci pour ñu jële ko fa ba ci sax bataaxal boo xam ne dañ dañu koy topp ngir Soumaïla may Maïga ngir mu mën faa jógee ngir dëggal seeni kàddu nag dañoo jàpp ngir dafa la ju moog ñama ànd rawatina lépp lu jëm ci wàllum kaaraange amul ca réew ma gannaaw kàddu yooyu nag ak yeneeni kàddu nag ñuy laaj bi samp ci ba xam jële wala fàtte ñu dem ci réewum Càdd lu toll ci juróom-ñaari militaire lañ fa faat nag gannaaw ña ko def nag dañoo bokk ci waa bokkoo xaraam ak fi nga xam ne moo di RCA IA ak loni nag ñoom nag boole nañ seeni doole ngir indiwaat jàmm fi nga xam ne moom lañ dénk lépp lu jëm ci wàllu mu nu mel kuréelu mbootaayu xeet yi jamono ñi àgg nañ fi nga xam ne moo di bàngi ngir mën a faa amal waxtaan wu ñu mën a jaar ngir yokk kaaraange ca réew ma jërë ngeen jëf loolu la ñu indiloon ci xibaar yi biti réew yi